bataxal bi serigne touba ko bind jeme ko ci mbollem taalibe yu ko top mo di len soñu ngir ñu farlu ci jëfee sharia ak haqiqa serigne bi wax ne ngi ñaan yalla mu musal ma ci setané ak bon boni bakkan ak réeralug banex ak bewlok setané ak wari aduna bismillahirrahmanirrahim Yalla de musal na ma ci yooyu ma doon muslu muy bon boni bakkan ak réeralug bànneex ak bewloog seytaane ak wari àdduna te lii ma wax kat yàlla doy na ci seede ki bind araf yi mi ngi digal képp ku ko topp mu sàmmonteeg mbind mii ci di ko jëfe suñ ko defee ñoom rekk lay jariñ suñ ko deful it ñoom rekk lay lor yéen samay taalibe déglu leen ma bu baax te ngeen bàyyi xel lii ma leen di wax bu leen wuuteeg mukk sharia te ngeen góor it lu ngeen mën ci xaqiqa sharia nag mooy gëm gu tegu ci tawxiid ànd ak yéene ju rafet ak lislaam ju tegu ci fiq nga boole ca kem la jàppandi ci xaqiqa te mooy def ndigal ak bàyyi tere ngir jëm yàlla rekk bokk na ci ndigal yooyu ngeen war a jëfe def wartee fi yàlla digle ak yi ñu sopp ak jëf yu dagan yi te amu yiw bokk na ci tere yi ngeen war a moytu it moytu di def lu yàlla tere ci sharia ak moytu lépp lu yàlla xaraamal wala lu musib kon yéen mbooleem ñi ma topp na ngeen góorgóorlu bu baax ci topp ndigal ak moytu tere ngir yàlla te ngeen doyloo sharia ak kem la jàppande ci xaqiiqa te bu leen fi jéggi ñaar yooyu mukk di jëm ci leneen ndax su ngeen demee ba ca kanam di ngeen gis lu tax ngeen war a jëfe lii ma leen di dénk kon nag na ngeen fexe ba bu leen dunduk àdduna gi wor te bu leen seytaane wor na ngeen tuubal seen borom te dellu ci moom am na ay yu nekk ci seen kanam yoo xam ne mat naa bàyyi xel lool te yeete ci bu baax wallahu ala ma naqulu wakil assalaamu alaykum wa rahmatullah